Assane Samb maa ngi lay nuyu. maa lay fay baax awa di nuyu auditeurs yi. alors sa xel màcc lépp lu jëm ci wàllum euh, politique ñu gis ne 100 jours yi nga xamante ne def na ko ci bopp réew mi moom euh, Bassirou Diomaye Faye jot na nag jàkkaarloog ak ñenn ci suñu ay euh, mbokku taskatu xibaar waaye tamit mu wax ci ay ponk yu bëri rawatina renégociation gi nga xamante ne wax na ko ci wàllum pétrole waaye tamit lépp li nga xamante ne jëm na ci wàllum gas ak ay contrat ana nan nga jàngatee lu ni waaw jërëjëf euh, dama jàpp ni effectivement euh, président de la république Bassirou Diomaye Faye euh, waroon na mën a jàkkaarloog Sénégalais yi comme ni mu ko defee bu doxalee ñetti weer pour mën a dalal xel yi gën a waxtaanak ak njabootam ak askan wi wax fa mu jëm ak li ñu jot a def lu tax ñu ñu def ko. tontu tamit yenn question yi nga xamante ni Sénégal yi ñu commencé won di di laaj euh, exercice la boo xam ni mu ngi am euh, ci moment boo xam ni ñu ngi doon xaar ay rendez-vous yoo xam dafa rate te ñoom autorités yi ñu waroon ko amal parce que ci loi bi la nekk benn bi mooy le débat d'orientation budgétaire ñu koy wax DOP nga xam ne ministre des budget du finance ko waroon def jotul am parce que assemblée moo bañ euh, ndax coow lu fa amoon ak autorité yi euh, beneen bi mooy la déclaration de politique générale nga ko doon xaar ci premier ministre tamit ñu waroon ci waxtaanee les politiques publiques ak orientation yi jël euh, boobu tamit tardé ndax ay coow yu am également à l'assemblée donc le président de la république comme moom la ñu fal moom mooy la clé de voute moom looy presque li nga xamante ne mooy base institution yëpp mu war a mottali yooyu yëpp jàkkaarloog Sénégal yi waxtaan ak ñoom ci ci domaine yu bëree bëri ñu tànn conférence de presse muy modèle boo xam dina permettre journalistes yi tamit laaj euh, président gën leeral alors mu exercice boo xamante ni am na solo lool ci wàllu communication jàpp naa ni am na président lu mu ci réussir convaincre na Sénégalais yi ci ñu bari bokk ci nit ku dal la nit ku yaru euh, nit la koo xam ne euh, mën nañ am ci moom yaakaar ak confiance parce que wanewul euh, bëgg nguur wanewul tamit bëgg bëgg alal xëy na loolu andiw ko loolu surtout image boobu la la la la wane alors tax na effectivement dalal na xel ci ci côté boobu ci lu bare bare ba mhm. donte nag ci biir discours bi bari na ci loo xamante ni euh, ba léegi mu ngi tey suñu xel parce que lañu ñu promettoon Sénégalais yi bari na lool mais bi ñu ñëwee ñoom ba toog gis nañ ni bari na lu ñu doon promettre sénégal yi pratiquement euh, loolu xam nañ ni mënuñu ko respecter parce que dañoo ñëw rek ñu ne rupture systémique waaw rupture systémique nag yombul euh, da ngay changer système bi complètement te ñun li ñu gis mooy bari na ci domaine yoo xam ne continuité la ñu gis affaire yi la fa newoon moo fi nekkaat euh, mën naa ci citer euh, les fonds politiques mën naa ci citer li nga xamante ni mooy appel à candidature yi ñu waxoon poste yi bu ñu koy joxee dañuy def appel à candidature te de jaaxaanaay yooyu yooyu gisuñu ci gisuñu ci ay changement relation yi ak yeneen état yi mel ni France ak yooyu ay CFA tout ça euh, kenn gisu ci benn changement euh, xëyu ndaw yi et cetera dara xeeñagul gisuñu dara ci loo xamante ni euh, taxawagul nañ ko institution yi fi nekkoon rek de financement yooyu la ñu maintenir supprimer yenn institution yi gisaguñ ko réduction des comptes gisaguñ ko relation premier ministre Sonko ñu ci ciy wax wax ju bëri mu dëggal daanaka sax la ñan dañu doon wax yëpp eh, ni kon da da gën a dëggal ni effectivement premier bi euh, pratiquement moo waroon a sax <laughs> moom moom da ko remplacer rek ndax circonstance mhm. circonstance yi mais premier ministre moo waroon falu et cetera et cetera donc boo toppee point par point bariwul effectivement ay changement li nga xamante ni wax nga ko sànq mu jëm ci renégocier les contrats Euh, pétrolier ak gazier mais kenn du ko wax ni bu renégocier mais boo renégocier lan mooy lan mooy problème bi boo renégocier waxtaanaat ko ba pare loo ciy jëlee loola mooy problème bi euh, foofu nag des na parce que contrat nag du noonu boo xasee wax ak nit ba signé nit ah la ngeen waxante woon la ngeen signante mooy seen loi yéen moo leen tënk du heure bu la neex rek nga ñëw dajji ko insécurité boobu amul ci contrat nga xam ni yow da ngay def sa waxante ba pare ba ni waaw nga tegguwaat lépp donte nag ñun sénégalais yi li ñu gënaloon mooy effectivement renégociation yi bu amee ñun liñ ci am euh, ci njariñ mu yokk loolu moom sénégalais yëpp ñoo ko bëgg bu fekkee mën nañ ko réussir xayrul mais suñ ko mënul réussir tamit ñu jàpp ne rek contrat moo mel noonu parce que euh, du wax naa ko sànq dafay am ay clause de stabilisation ñu ciy defar contrat bu mag mu am nekk ay milliards day jël ay précautions ba ëllëg si biir boo ko dajjee nga fay ka ndàmpaay wala nga nga nga nga nga mën ko rembourser ay fonds donc yooyu moo tax du yomb waaye nag bu ñu sañoon tamit ñu réussir ko waaw loolu effectivement point boobu loolu laa ci bëggoon na sànni waaye li wër daal mooy euh, exercice la boo xam ne am na solo waxtaan la boo xam ne am na solo président dalal na xel ci wàllu boppam moom en tant que nit ni mu taxawee ak yëpp mais nag kii li nga xamante mooy rupture systémique man gisagoo mooy rupture systémique euh, changé nañ daal ay nit ci bopp institution yi yu bëree bëri waaw waaye nag pour ku changement radical de ma ko donte nag sama xel daal na ci benn côté mooy li nga xamante ni mooy fiscalité Euh, pas seulement fiscalité parce que effectivement fiscalité tamit boo ko poussé ba mu ëpp mën na décourager l' investissement mais li jëm surtout si jubal maanaam ñi nga xamante ni ñoo jiite toujours ñoo war a gën a jub bu ñu wanee jub googu ña ñu jiite quand même man ci topp parce que Sénégal dafa am problème sérieux ci wàllu jikko ak ci wàllu corruption loolu moom daf ñuy yàqal lu bëree bëri et bu ñu amee njiit boo xam ne amaana moom euh, li ko yitteel mooy jub jubal jubbanti amaana réew yi mën a gën a tegu ci yoon. Mhm. na jot naa waxtaan yi tamit ak élimaanu jëriñ yi di Ousmane Sonko ne daal ngir mu dellu ginnaaw ci décision yi nga xam ne jëloon na ko def déclaration de politique général ci kanamu assemblée euh, populaire ndax mën nañu xaar déggoo am ci euh, ñu mettre à jour li nga xam te ne mooy règlement intérieur bu assemblée nationale talaata. waaw loolu lu am solo démarche boobu mu def kilifa noonu la def su fekkente ni dafa jiit euh, dafa nommé premier ministre premier ministre jote ak assemblée assemblée jàpp ne def ko manque respect ba pré ba assemblée def communiqué ci sens boobu wane ni na xarab président de la République dafa war a taxaw euh, dafa war a jóg moom mënatul toog sol dàllam régler loolu te yaakaar naa def na ko pour que assemblée ak primature bañ nekk ci réero boo xam ne ëllëg ak si biir daf ñuy indil daanaka duggoon nañ ci crise institutionnelle mais nag ñoom dañoo créer un faux problème parce que problème boobu jarul woon créer te li tax ñu créer que ay considération ay calcul politique rek la parce que boo ko seetee ci wàllu yoon constitution moo ni déclaration bi dafa war a am premier ministre bu jógoon rek bind assemblée na ko dama bëgg a def déclaration tel jour tel date wala assemblée ne ko nañu waxtaan xool date beeg jour bi du indi problème parce que Amadou Ba defoon na ko en décembre deux mille vingt deux. Mhm. amul woon benn problème te modifié woon ñu woon règlement intérieur. mais également côté assemblée ñoom aussi buñ bañoon politique mënoon nañ defaraat rapidement en session extraordinaire ñu réunir defaraat seen règlement intérieur loolu ñoom ci ñoom la loolu du woon problème li tax nag kenn ku nekk si ñoom taxaw fa nga taxaw c'est parce que premier ministre Ousmane Sonko yàkkamtiwul ñëw assemblée parce que benn premier ministre bëggul dem ci kanamu député yoo xam ni moom en parti am fo majorité parce que loolu wóorul parce que ñoo en waa yeewi askan wi donte minorité la ñu woon en en bi Amadou Ba ñëwee hésité wuñu benn yoon déposer comme motion de censure xam nga loolu jekkul woon ci gis-gis mais jàllul parce que amuñu woon majorité mais Benno fi mu nekk nii amaana mu am mën a am majorité facilement donc loolu moo tax premier ministre bi du yàkkamti ñëw seen kanam di def déclaration politique générale parce que day mettre en danger gouvernement am ak postam moom euh, beneen bi moo au niveau de Benno ñoom aussi dañuy wane seen bopp wane seen fula wane seen kii di teg pression autorités yi parce que xalaat nañ ne autorités yi li ñu bëgg mooy dissoudre assemblée te bari na si ñoom ñu koy wax donc ñoom itam ñuy def di wane seen bopp euh, balaa daraa xew parce que amaana autorités yi buñ ñu leen tegee pression yenn yi mën nañ waxtaan ak ñoom pour assemblée bi mën a continuer yooyu mu calcul politique yooyu moo fi ne moo tax ñu indil ñu un faux débat de droit parce que en réalité droit xam nga du lépp rek dañ koy bind ñi foog droit dañuy bind ay mbind ay articles rek yu ñu rangale mais xamuñu droit droit du ay article yu ñuy rangale ci suufu article bi dafa am lu fa ne c'est comme fondation ak bâtiment li ngay gis ak la ne ca suuf la ne ca suuf mooy les principe de base loolu moo tax constitution britannique kenn bindu ko constitution orale la te moo gën a dëgër ci constitution àddina bi te pourtant kenn bindu ko fenn parce que droit du rek ay affaire u texte ñëpp xam nañ ni bu premier ministre jógoon dem assemblée di def déclaration kenn du ko ne doo ko fi defee donc véritablement dañu indi rek un faux problème pour toujours comme ni politiciens yi def rek généralement pour des calculs politiques. Mm. te fi mu toll nii nee nañ amul benn fond politique boo xam ne rek fekk nañ ko fii ba ñu ñëwee ci bopp réew mi euh, loolu nan nga ko jàngatee. ah mais fond politique président moo ko moom <laughs> dañ ko voteel nit ne ko bu ci def benn kii nu mu tudd euh, bu ci def benn benn benn traçabilité benn justificatif moom kay du la wax fu mu moom buy dem day day ramasser fonds politique am ñun kay ñoo war a xool bu président bu bees ñëwee ni ñuy def ba année bi mu am ci ay fonds politique loolu c'est important euh, mais surtout loolu jaaxaluma li li ma ci gën a jaaxal mooy la mu waxaat mooy euh, fonds politique yi duñ ko supprimer mais euh, dañ koy supprimer def ko ay fonds secret mm-hmm. mais mais fonds politique mooy fonds secret tur bi benn la c'est-à-dire que bu bu ñu mu yaakaar ni fonds politique mooy fons yoo xam ne da koy politiquer déedéet fonds la yoo xam ne ay fonds secret la pour des secrets d'État moo tax ñu koy wax fonds secret. Mm-hmm. parce que bu euh, État comme chef de famille day am ay yoo xam ne bu koy lijjanti njaboot gi duñ ko yëg mais nag ci intérêt njaboot gi la waaye du soxlaa ñu koy yëg parce que buñ ko yëgee mën na indi leneen donc am État dafa am ay secret daa am yu muy def ci biir réew mi ak ci bitim réew loo xam ne intérêt état bi la mais du ko mun wax loolu moo tax ñu woteel ko budget boo xamante ni ay quelques milliards tegal ko kon bu ëllëgee si biir président de la république moom xam nañ ni intérêt réew mi rek moo ko tax a jóg parce que da ko waat comme daf ko waat boo ko votelee ay fonds bu waree doxal yenn yi ci suuf dina ko mën a doxal pour intérêt askan wi ak intérêt réew mi loolu moo tax ñu koy tuddee fonds secret mhm. boo nee dama koy éliminer nag. nga ñëw gis réalité yi gars yi xamal la réalité yi nga xam ne mënatoo ko éliminer loolu mooy li xew waaye nag naan fond politique amul fond secret mooy am yooyu yaakaar naa mu ngi mel ni rek nga ni Dakar amul Ndakaaru moo am euh, problème sémantique la rek mais en réalité le problème mooy mënuñu supprimer les fonds politiques parce que dafa am solo Mm-hmm. Assane Samb jërëjëf may fàttali rek ni analyste politique nga sa xel dafa màcc lépp lu jëm ci wàllum politique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. baax na ñu leen di sant di leen gërëm di leen encouragé bu baax ci liggéey. di leen bu baax ci liggéey.